gis nga vidéo bi may def man soxna Mbodia Mbaye damay wax te yàlla rek tax man faruma ak aawo faruma ak ñaare faruma ak ñetteel ñeenteel waxaale wu ma ko mais da ngay dugg tey ci kër goo xamante ni dangay ñëw fekk aaw ba toog na la mel ni locataire ci biir kër gi ki doom du fa tekki dara beneen jeeg bi ñu takk andi ko ci kër gi mooy def mooy dindi mooy joxe bu ñuy togg mooy joxe bu ñu yàq waa loolu fu ngeen ko teg gis nga tendance ci biir kër yi goro yi di ko tendance ak njëkk yi tey ñu taf jeeg bi bu subaa ñu tepp ko taf nan ko bàyyi góor ñi na ngeen xam ne lu bees neex waaye da leen seen xel yi jël jël jabar ja nga xamante ni moo ñëw bu yàggut mel na ko neex nga jël sa aawa pakete ko def ko ne la nga sa aawa ci kër mooy yaay boo ko fonkee ku ñëw fonk la la ko waaye boo ko ñàkkee respecté ku ñëw it na nga ko jàppe rek la na nga ko rek la ko koo koy jàppee kon nit dina sëy ci kër fekk fa nga teg sa aawo mu jël mu ñëw teg fa sa aawo nga am jàmm mais jël fa nga teg sa aawo nga waaye di loo ko ñàkk loo ko fayda ku ñëwit moom la koy jàpp ndax uude nu mu la gisee la lay ëwale góor ñi ne delloo seen xel yi aawo du moroom aawo du ay caaxaan ñu baree ngi dugg tey ci xat-xat yi bari mënutu caa génn di dugg ci musiba dem ba ci ba seen lépp yàqu lu mu yàqu dugg mu yàqu dañoo jaar ak seen awo fu metti mu mu ñëw leen lu metti lool ñu xëy ni ko coppe teg ko fële sànni ko ca àll ba tegatuñ ko muy nit considéré ñu ko ci dara nga defe ne yow di nga am jàmm tendance yi nekk ci biir kër gu la sa aaw wax nga sànni loxo lu koy bëgg tey nga yendoo topp suba ba ngoon di ko lijjanti fu ngeen ko teg jital leen seen xel yi yàlla léegi day àtte ci kaw suuf yàggatul te nit nga takk ko muy xale bu ndaw juróo juróo jur ba dooleem jeex deretam jeex takk nga jël ko di ko sufriloo ba du ko ko gis ku mu jéggi sam ndox doo ko naan nga waaye di loo ko fu mu romb ñu koy kenkeŋee di ko ree famille bi ngay sëy kenn nawlooti ko kenn considéré nu ko ndax fitam dem na am xelam dem na ma nga dem ba commencé mel ni ku naax wala ma nga dem ba commencé mel ni ku am xelam dem dof dëkkal ko ndax lan souffrance gi muy dund ci kër gi ndax lan torturé gi ñu koy torturé ci kër gi yow borom këram nga ànd ci ñu koy torturé di torturé ay doomam mu koy souffrir ba xëy ni kën dang dee ak ak njabootam des di toltolaan vidéo bi may def man sax dama ko yëg ci sama xol ka ni dafa metti ndax damaa gis ñu ko dund te man mi di ko def sax pour mu yegg damay forcer mais dafa metti ci xol vidéo bu metti lay def ndax gis naa ñu ko souffrir tey ba xëy dee tey ba xëy te wallaahi azim yàlla rayu leen souffrance a leen rey ak naqar nañu delloo suñu xel yi góor ñi nañu ubbi seen bëti di ko xool am na loo xam ne jigéenu a ko daj ci biir kër góor di ko teg jigéenu a ko daj ci biir kër ay njëkkee ko goro di ko teg jël moroomu jeeg teg ci kawam ku ko ku mu ku ko dundul munoo koo xam te ku mu dalul munoo koo xam mais jamono ji ñu fi wax am na bu kenn amul am na te lépp ci biir dëgg dëkk bii lay xewee nañu gëm yàlla te xalaataat àdduna bee yombal xiyaam mi ngi ñëw de nañ ci dell suñu xel bi bu baax a baax a baax te bu ëllëgee wallaahi azim barke Seydina Muhammad di nga dégg yuuxu foo ko foogewul ci diggante góor ak jigéen